waaw man déjà mais mais en fait mën nañoo changé benn. ma leer la. waaw bala ngaa taxaw bala ngaa taxaw leer la. xaw ma jënd li tax mu yàgg maanaam di jàng ba gi man a toog fukki fan ak juróom-ñett ba amul weer loo gis bu ñëwee fan mu jëm mu toog. mais en amuñu benn méthode. buñ mën a jaar hmm. pour lu jéng ndax euh, jéng boo xoolee daa xaw a ndróog dafa xaw a vulgaire quoi dafa xaw a ndróog affaire de jaam parce que colléance xam nga ñi nga xam ne dañ daan tënk di leen jaay avec mooy loolu léegi léegi buñ jéggee nit day hmm, xaw a bokk hmm. xam ak kii nga xam dañ ko tënk ngir mu am lu baax bokkuñ de te dañ ko jéngee dañ ko jéng ngir mu xam yàlla xam adduna xam alaxira am ko ci tamit teg ci moom bokkuñ ama kee buñ par nañ ci moom li bu ci balee su noppee dana rëccu lan doon def dañ koy jéng am na doog ñaareel ba daara bi taxoon ñu jéng ay waajuram ñu ko bàyyiwoon si daara muy muñ ñoom ñaar ñëpp dañ leen boole foofu eh, léegi comme sama genre gi nga xam ñun dañoo yaakaar ne mu jéng ab jaam la comme ça ndax rafetul tamit doomu aadama ñu takkal la ay teen et mooy loolu loolu rafetul ci gis-gis léegi pour yow pour pour yow daara yi nan wa nan nan war a utiliser daara jéng mën naa ñàkk daara ndax te tollatuñu jamono joo xam ne jamono jaam et puis jamono joo xam ne dañoo war a di jël am na loo xam ne rafetul ci doomu aadama ñu tënk ko comme xam bu nekkee ku am xel di xelal li ci kanam ak li ci ginnaaw ba pare tamit di xalaat ne di am na ci war a doon ah, benn yaa ngi naan gis-gis ci maanaam ñu jéng nit maanaam tey ju fekk nga fekk mu jéng nga ne gis-gis rafetul daanaka ah, rafetul waaye mm, maanaam daal bu nekkoon teggit ba xam ne jëmmi. sëriñ dara bi të bi tëjlu bi kii yaay bi jëngalu gone gi bu ñàkkoon teg loolu ko def mhm. léegi nag léegi daa xam ne léegi njëriñam la njëriñam tey njëriñam ëllëg léegi nag léegi nag ah, daal jóoreem fekk maam daal li muy noonu ko daal yéen fekk ñu dëng fekk ñu jub mhm. ah léegi ñu dëng am na am def ba bëgg ñu def ba seen kii bi la a ko léegi nag jéeg loolu si am yoo xam ne ko mën a dindi hmm. léegi soo jéegee léegi yéen nga toog kër gi yaa ngi toog sama nga leen nga xam ne yow bu ñu boo toogee li nga am di nga am te doo ci sonn moom kenn du la jéem. dina jéem a toog waaw ah. ah. léegi loolu ah, looy wax xam nga sama genre gi nga xam ne man. ñu ngi ko xamee nii amee ma ko noonu kon yaakaar naa ne ku jéng rek jaam nga évite léegi yow lan wax ñi nga xam ni xamuñu lan mooy jéng tey après ñuy bëgg ci wax di ci wax ci ngi comprendre léegi lan ngay wax ci ñooñu. <coughs> dañuy wax si maanaam seen xel dafa gàtt. Mhm. te dañuy njóor ci daal ba ba xam li ci daal. Uh-huh. ba pare tamit euh, euh, am nañu ko ko xam. Mhm. ki misaale hmm. nit dafay liggéey ab liggéeyam ba man hmm. mu métti lool keneen ñëw di ko liggéeyaat yow mi xam liggéey bi méthode liggéey bi nga gis kooku muy daj li ci kii bi li ci hmm. xam ne gi dara xam nga bu ñëw da koy noonu rek naan yaa ñàkk ji ma nangam ay bu yono bu ñëwee koy sant naan ko kii wurgóorlu def dër baax xam nga yow li jëg jëg jëg moom la demee. kon daal kon daal jéng daal ku nekkul ci daara waroo mun a euh, munoo xam lan mooy jéng te it fi ko deful ba nga wees munoo xam njariñu dee jéng te it li ma déggee sa wax mooy comme sa daara ji duñ tëb tëb rek jéng nit nit ki li tax ñu lay jéng yaa koy def. waaw. Euh, xam nga ki moom. Mhm. yaa doole fekk xam ngi muy toog di jàng. daw wala nga fekk kii tuxaam tuxaam moom di jàng di daw nga ànd ko yéeg xam nga loolu xeesul. Mm-hmm. xam nga loolu xeesul léegi nag bala ngaa bala ngaa mën a jéng daa jékki-jékki benn te fi jukki daw baa nga am loo def loo xam ne jéng dong wala ci wala jëlee daa am loo xam ne yar moo koy dindi am loo xam ne jéng koy dindi am loo xam ne wax <coughs> ah, ko dindi. ok jéng daal xañ nit ci ay liberté yoo xam ne mm-hmm. moom du ko mën a am te dina ñee moroomam bu am ko mu ni léegi bu nekkam kii jénguñu ko kon naa jéem a def li muy def euh, comme daal fag gi toog ba am li muy am mm-hmm. am boo xooloon daal jàng ngay tubaay mm-hmm. nga xam ne yow mi jéng ci bari doo ko am maanaam doo mën a yoraay doo mën a doxi say soxla am liberté xaalis tamit dina laa nga li ko li ko nit ñi am doo ko am mm-hmm. liberté tamit doo am mm-hmm. te xam nga yow suñu la bàyyiwoon tey jii noonu ah, woo góor am mm-hmm. ku la ku la sant du la ŋàññ yow boo amee xel am jom waaw de da nga jom cey Serigne eh, daal sa wax ji li ma si jàngee mooy ñun ñi xamul daara mosuñoo jaar ci daara eh. mosuñoo xam lan mooy daara danoo war a ci daara ah Bamba Touba. suba dégg naa si yéen. man kay kii xamaguñ ko. man